alallasi bihi lanal uda bada sayidina muhammadin wal ali wa sahbihi dawina walil wali laqil lisaani waxlulan minhu lunqad wacalhu dakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta allasi allamta luqmaana alxikam faliyahab bilmustafa xayra shiham asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki daara jawaati bi ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di beral nu yóg siyaar waa daara Hikmatul Yawmi xaaj yëpp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 te mu jëm ci spécial tabaski te démb ñu andi woon ci fi yonent yàlla Ibrahima di sante suñu borom tabaaraka wa taala ci may gi ko may ñaari doom yu soppulu muy Isxaaq ak Ismaayil di wax alhamdulillahi allasi wahaba li ala alkibari Ismaayila wa Isxaaq inna rabbi la samiu duaa kon tey ñu wéy rek ci démb andi woon nañ cosaan li waaye tey ñu andi ci xikma yiñ ci mën a déggee yi nga xam ne ni mënees na ko déggee ci eh, ndigal loolu yi nga xam suñu borom tabaaraka wa taala joxoon na ko yonent yàlla Ibrahima di ko nattu waaye di nattu doomam ak soxnaam yonent yàlla Ibrahim bi ko suñu borom mayee doom yooyu yonent yàlla Ismaayila nag ba demee ba nga xam ne nii toll na ci dëgër nag lool sax. di di ne sojjet di doxi ay soxlaam doon xale bu góor bu rafet bu mën a dox soxla te yaru lool te baax te rafet yonent Yàlla Ibrahima sopp ko lool nag wax dëgg yàlla fa la ko suñu borom tabaaraka wa taala nag waxee ne ko nag ah sa doom jooji kat nanga ko rendi falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qaala yaa bunayya inni araa fil manaami anni adbahuka fanzur maa tara qaala yaa awati faal ma tuumar sa tajiduni insha allahu min as-sabirin ba mu demee ba ba mat daal ba mat nit ku rafet hmm. suñu borom laa la koy digal loolu mu gis ko ci gént ku ne xam ne ne gént géntu yonent ndigalul suñu borom tabaaraka wa taala ba mu xëyee mu daal di woo doom doom ja mooy Ismaayila ne ko nag ah man damaa gis di la rendi ci ay nelaw damaa gis daal suñu borom di ma la rendiloo ba noppi nag ne ko nag lu ci sa xalaat lu ci sa xalaat waaye lu ko doom ji tontu yaa sama baay defal li la yàlla digal incha allah da nga fekk ma bokk ci muñkat yi kon Ibrahima ndigalu suñu borom tabaaraka wa taala moo ko gënal boppam gënal ko doomam gënal ko soxnaam waaye doomam it di Ismaahila baayam jëfee ndigalul suñu borom ci kawam moo ko gënal boppam waaye soxnaa bi di soxna Haajara borom këram jëfee ndigalul boromam ci doomam moo ko gënal doomam kon nga gis ne nattu yaleen suñ borom doon nattu moom gis na ne kon rek ah ñii kat seen pas-pas dafa gën a yees te gën a màgg te gën a rey waaye dara sikku ci kon loolu lu am am solo la euh, beneen xikma bañ ci jàngatee itam mooy jëfee ndigalul suñu borom amut lor kenn mës a gis ku lor ngir jëfee ndigalul yàlla déedéet xanaa nga koy sikki sàkk waaye bu la yàlla digalee rek nga def lor moom amu ci wax nañ ni am na nituk suñ boroom ku yàlla waroon bis penc mu gis ñaar ñoo xam ne ni dañ leen a àtte bañ war a dem safara suñu borom digal leen ñu dem tàbbi safara kenn ka nag moom bañ bañ leen joxe ndigal rek dafa dafa daal samp aw xel xel wu rëy a wuti sawara suñu borom daal ne wax ma malaaka yër may ne leen gàttandu leen ko laaj ko lu tax muy daw bañ ko laajee mu ne man damaa xam ne bañ a jëfee ndigalul suñu borom ba ma nekkee àdduna moo ma jural lii kon nag bis ni ko tey dootuma dootuma xaar dara ci ndigalam lu mu ma digalati rek ma def ko fa saasa loolu moo tax mu daw wuti safara suñu borom la ko jéggal ngir loolu kenn ka moom di temp ndànk di yéexamtalu ngir yaakaar yërmande suñu borom dab ko suñu borom wax malaayka yi ne ren dem leen laaj ko lu tax moom nanguwut a dox doxinam bi kat yéex na ñu laaj mu ne ah man damaa xam ne eh, bu ma yéexee mën naa am bala maa àgg yërmande suñu borom dana ma dab moo tax ma koy xaaraale suñu borom yi daal ne kon moom itam nañ ko tabal na ngir li mu yaakaar yërmande suñu borom tabaaraka wa taala kon jëfe ndigalu suñu borom amul lor lañ bëgg a wax foofu. beneen xikma bañ ciy jàngatee itam mooy euh, nawloonte gi am ci diggante kilifa ak njabootam mu mushawara bi am ci diggante Ibrahima ak Ismaila ndax bu doon jamonoy tey jii kat am na ñoo xam ne nii bu fekkoon dañ digal dara ci seen doom bu seen doom fooyee ba ñëw wala mu jàngi ba ñëw wala mu génn ba ñëw dañ naa ko foo demoon yow waa tegal foofu yow moom bu subaa dama lay rendi yàlla digal na ma nangam nag boo defee nga xam ne diisoo du am ci seen diggante waaye gis nga da koo wax la muy doon doon gone ne ko nag loo ci xalaat. daal di woo soxnaam it ne ko ci xalaat kon nga xam ne ni itam diisoo gi nga xam ne dañ ko war a def ak ndaw ñi loolu itam feeñ na ci ci xikma yi imaam muslim day nettali yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mas a toog ak saxaaba yi di naan ndox waaye nag as ab xale moo toog ci fi féetee ndeyjooram saxaaba yu mag yëpp ñoom Seydina Omar ibnu Xataab féetee ko càmmoñ yonent bi naanee ba noppi ku na xam ne ni sunna bokk na ci nga tàmbalee ndeyjoor booy joxee jëm càmmoñ yonent bi gis na ne ki nekk ci ndeyjooram kat ab xale bu ndaw la saxaaba yu mag yëpp ñu ngi ci càmmoyam am na yéenay jox jox leen waaye gis nga lam koy bëgg-bëgg xeebut xale ba dane ko ndax mën nga maa may ma jox mag ñi xale ba ne ko déedéet loolu kay du ko may cër bi ma am nga xam ne nii fi nga tegoon sa gémmiñ ma am àqi topp ci yow loolu duma ko may kenn moo tax ma ne imaam ahmad imaam muslim da koy nettali ne yonent bi dafa xale bi ne ko ataazuni li an uxtiya haula ndax man nga maa ma jox mag ñi fa qaalal xulaamu laa wala wallahi loolu kay mënuma ko maye laa usiru bi nasibi min ka ahada kon nga xam ne nii ñoom li ñuy jàngale wax dëgg yàlla bu fekkee ne topp nañ ci gone yi lu ñu leen jur jur ak lu ñu leen mag magit duñ leen jàppee appareil yu ñuy toppalee ka teg fee ak teg na la waaye dañ leen di jàppee ay nawle diisoo ñoom di waxtaan ak ñoom loolu itam bokk na ci xikma yi nga xam ne ni nemmeeku nañ ko ci